kon gis ngeen mbokk yi Yahuda mi ngi noonu léegi nag paa bi mi ngi ci seen baay ma nga ca néeg ba muy jaamu yàlla waaw ma nga ca néeg ba muy wéetale yàlla suñ borom subhaanahu wa taala. na ko bu ma laawi nee na bu ma sañoon duñ fa dugg ndaxte fi maam Ibrahim daan wéetale boromam fa la nekk soxlawul leneen lu dul wéet ak yàlla dong. nee na amuñu benn occasion gis nga Yahuza nee na amuñu benn occasion bu gën a rëy bii kon nañ fexe ba ci góor gi wax ak moom donte dañ ko fekk ci xaloo sax ñu ñu fexe ba wax ak moom daal mu bàyyi ñu euh, euh, lu ñu bëgg mooy fexe ba jël Yuusuf ko ci àll ba foo ak moom bu ko defee bu ñu bàyyi mayee loolu ñu daal di koy sàkkal pexe nag seet nañ ko reyee gis ngeen mbokk yi góor gaa ngi noonu fi fii bëgguloon kenn ko ko fekk ndax ci xal wala nekk fii la maam Ibrahima alayhi salaam daan fi yàlla bu fi musaan nekk ci waxtu bii ci heure bi ba kenn daaw ko fekk day wéet moom dong ñu koy nuyu. asalaamaaleykum yàlla yàlla yàlla jàmm wàcc samay doom. gis nañu yaa ngi wéet ak yàlla. ndax da ñu ñaanal yàlla mu dëppale suñuy mbir. ba tey maa ngi eh, du ma dañ mukk di ñaanal yàlla mu mu dëppale seen mbir ci lu baax. xam ngeen ni waxtu wi duuma waxtu woo xam danaa soxla dara yàlla rek laay soxla dañoo bëgg daal li ñu indi mooy nga jox ñu ndigal ñu ànd ak Yuusuf ci àll ba lu xew ba ngeen di ànd ak moom lu tax ngeen di proposé loolu lu xew lu lu lenn la ñu tënk nag waaye dañoo bëgg daal ànd ak ñun mu soog ñun ñu xamal ko nan la ñuy sàmme nan la ñuy wattu ak nee na ko Youssouf xale la boo xam ni. nekkul xale boo xam ne dafa war a génn jamono ji di ay fo ak yooyu. nee nañ ko danañ ko wax danañ ko aar. ñoo lay dig loolu. nee na bàyyi bàyyi leen ba mu jot rek. bàyyi leen ba mu jot damaa nekk ci leneen. loolu du léegi. bàyyi leen mooy it ak yàlla. gis ngeen day mbokk yi noonu lañ ko alquran nettalee mooy la yàlla di wax ni ñoom ba ñëwee seen bàyyi dañ ñu ko daal dañoo bëgg nga bàyyi ñu ñu ànd ak Yusuf ñu njëkkante di kaf di ree xamal ko lu bëri bi yéen xam naa ne da ngeen a lot yéen da ngeen a yambari leen dara da ngeen a yambari mënu leen dara yow bu dee mën nga demal bu dee mën nga demal gis nga ni ngay commencé jàppante xanaa yéen yëgu leen ni yéen da ngeen a fàtte ni ci doomi yonent ngeen bokk du seen cër yéen doomi yonente ngeen كنت أعرف أن لا خيار أمامنا سوى قتل يوسف وكنت أعلم أن الرأي الذي أتى به لاوي عقيم فأبونا لا يسمح بأن xam naa ni suñu bàyyi duñu bàyyi ñu du sori Youssouf te xam naa ni sa xalaat bi nga ñu indiloon du xalaat baax. أن تقتلوا يوسف على مرأى من أبينا أليس كذلك؟ يتوجب علينا في البدء أن leen rek moo ñu war loola laay wax mooy ñu fexe ba tàqal Youssouf ak sama baay ñu xalaat ci leneen waaye yéen li ngeen bëgg ray gi moom direct moom loolu dafa yomb te loolu baax am na benn lu dem sama xel mi de am naa benn xalaat kenn mënta convaincre sama papa بإخراج يوسف معنا إلى الصحراء إلا kenn mënut fexe ba convaincre Pape mu bàyyi ñoom Youssouf lu dul Youssouf jëmi boppam kon nañ nañ waxtaan ak Youssouf ci loolu wax ko ci mbégte mi nekk ci ak ak bànneex bi nekk ci foo <laughs> ak mbégte mi nekk ci sàmm ak yooyu yëpp bu ko defee Youssouf bu waxtaan ak papaam papaam dana dana nangu noonu ah xalaat bu jub la nañ nañ nañ jéem loolu ba xam nañ jéem loolu. nee na kon amul benn xalaat bu mën a fexe ba nax sama bàyyi ba mu bàyyi ñëw Youssouf lu dul Youssouf ci jëmmi boppam. Youssouf la ñuy jaar nax ko waxtaan ak moom ni ko léegi ñaanal sa papa pour ñu ànd ak yow wan la li ñuy sàmmee wan la li ñuy foyee ci àll bi wan la lan la ñuy ànd ak ay jur bu ko defee yu bëri bëri comme nga xamagoo ko bu ko defee euh, buñ defee noonu rek Youssouf bu ko waxee papam moom lu mu ñaan bàyyam bàyyam dina ko may. yow ndax da bëgg Youssouf di dal ci di des ci àll bi di des ci kër gi rek xanaa bëggoon ak ñun. ah kay man maag sama rakk ñi ngi doon toog fii di fo. ñun dañoo bëgg fo ànd ak yéen. xanaa mu ni fo ca àll ba ak bég ak kontaan loolu dafa neex. lan moo tax yóbbu leen tur gi loo tax sàmmiw leen. dañuy xaar si mbokk yëpp ñëw rek ñu doog a dem. xanaa tey da ngeen bëgg si geen dem ci àll bu ci kanamee danañ dem. dañ doon laaj ndigal rek pour ànd ak Yuusuf ci àll ba tey ñu ànd ak moom bàyyi lu tax doon jox ndigal ñu ànd ak Yuusuf ci àll ba pour mu mën a ko ànd ak ñun jàppale ñu ci yéen liggéey ñii ñoom ñu ngi wax ak Yuusuf ñu ne ko kaw gi ñëpp xam nañ bànneex bi nekk ci sàmm. ba xanaa xamoo ni ju maanaam meññeent bi nekk ci àll bi moo gën a neex. neen baa xam ngeen ne Youssouf jirim la te dañ maa yaayam daf maa daf maa sosoon mooy sàmm ko aar ko te dañoo war ci baay yi ak doom yi ñu wattu seen doom yi nga xam ne ay jirim lañu. xam nga ñu bëree bëri dañuy wax ni Youssouf Yaquba wóolul doomee ci Youssouf ah yow soxna si nee na ko waa góor gi te nga leen a bàyyi rek ñu ànd ak seen rakk dem fooy rek. nee na ba tey Youssouf xale la xamagul yooyu nañ ko bàyyi fii rek. xanaa mu ni liggéey ci àll ba dem di sàmm yooyu day métti ci moom. waaw yii. ñun bi ñuy ànd bi ñuy dem ci àll ba doon sàmm yi boobu ñoo gën a tuuti Youssouf ba ñuy tàmbalee sàmm boobu Youssouf ñun ñoo ëppoon doole Youssouf ñoo ko ëppoon waaw man. nee na ko seen jamono jooju ngeen di ah, nekk ay xale di dem ca àll ba jëm bokkut ak jamono ji Yuusuf toog bàyyi de danañ ko danañ ko sàmm danañ ko toppatoo danañ ko taxaw waaw ah, Yuusuf il faut mu mu mu ñu ñu ñu ñu tàmmal ko loolu xamal ko ko ba mu miin ko. waaw. Baye ñu ngi lay xamal ni daal danañu foo ak moom kaf ak moom reetaan ak moom gis nga ñii ñi ngi jéem a convaincre Youssouf ñi di jéem a convaincre Baye ñun ay mbokk la ñun ñëpp dañoo war a foo suñu biir lu njëkkante rawante mu neex bu ko defee ñu lekk yàpp di lekk ay fruits loolu Youssouf dafa neex boo ko ñamoon xam ñu daal yëg nañu suñu Baye ba tey wóoluñ ci Youssouf ah kay wóolu naa leen waaye xam nga ci li ci àll bi ñoom laa wóoluwul man ngeen nekk ci liggéeyu àll bi nekk ci jur gi ba sàggane ko bu ko defee kii daal di koy lekk ci lii lekk ko ca loolu laa gisoon ca gént ga لحسن الحظ انك شاهدتنا ñun kay kon bàyyi da ngaa bëgg a wax ne ñun ñun ñooy tilli rek ah kon xanaa da ngaa bëgg a wax ne ñun dañoo bëgg lekk suñu suñu suñu mbokk Yuusuf danañ wattu suñu mbokk mi Yuusuf te danañ ko aar na sa xel dal bàyyi ah Yuusuf a ngi dem nag allahu bàyyi booy abi ndax doo ma jox ndigal ma ànd ak sama rak sama magi dem dem sàmmi foo ak ñoom yow xale bu ndaw nga ba tey da ngaa war a foog sa xale yu ndaw yi nekk ci kër gi waaye man bàyyi nekkatuma xale nag damaa bëgg a mag damaa bëgg a foog sama mag yi ndax dooñ jox ndigal ñu génn ànd ak ñoom. Yuusuf ci boom jëm boppam sax moo koy waxal boppam. ay baay booñ joxoon ndigal ñu ànd ak dem ci Yuusuf ak moom ci àll ba. bàyyi bàyyi dimbali ma rek may ma rek may ma rek occasion bi rek ma ànd sama mag yi maa ngi lay ñaan nga dëppoog ñun ci loolu. ah gis nga dañuy gi góor gaa ngi xalaat waaw baax na kon may naa leen digal <laughs> gars yi ne plan bi dal na allahu akbar jërëjëf Baye ah kon préparé leen ñu dem Baye ba xel bi dalul nañ leen dem nañ leen dem daf leen ndànk Baye ma foon Youssouf ba pare may leen moom a gis moom ah mbokk yi day Baye jee ngi war a wéet ak Youssouf na ngeen góorgóorlu xam ngeen Yuusuf amul coono su ngeen demee na ngeen góorgóorlu yaay booy na sa xel dal danañ ko wat danañ ko aar ah mbokk yi gis ngeen day Baye jaa ngi génn nag yére boobu ñu ko joxoon bi mu agsee ci dëkk bi mooy sawbun nubuwwat yi yére bi yonent bi bi mu doon ne woon ci baayam Isxaaq na nga sori say mbokk nag bàyyi leen xel na nga góorgóorlu ci sa bopp na sàmm sa bopp. lii jëlal chemise bi nga sol ko <laughs> allahu akbar ah mbokk yi tàggoo goo xam ne day boo moytul ak gise dootu ci amaat wala bala moo am mën naa yàgg lool bay booy abi daa mel ni bañ koy ñëw dañoo dañoo jël sama mesure de <laughs> lii chemise la boo xam ne ñoo ngi ko wàccee aljanna andi ko sama bay sama ma Ibrahim Khalilur Rahman baay ba muy Ibrahima ba muy génn àdduna mu jox ko a baay Isxaaq Isxaaq ba mu génnee àdduna ñu bàyyil ma ko fii man ma yor ko léegi yow nag euh, na nga koo wattu solol naa la ko mi ngi sa biir gis nga mbokk yi tegale na ko ñaari yére ci kaw ndax rek ñu bañ a àgg ci yére boobu ndax te yéene boobu mbir la ndono lu foor la ndonol yonent la moo nga mbokk yi kon yéen a ngi gis Youssouf mi ngi noonu papa ma koy dénk papa ma ngi koy dénk ne ko nañ dem ne na Youssouf ñëw na de ah Youssouf solo na waaye ñëwal ñu dem mbir mi mbaax na Youssouf ñëwal ñu dem danaa ànd ak yéen ba ngeen jigee àll ba naa leen gunge ba ci kanam bàyyi bul tiit bul jàq Youssouf danañ ko wattu danañ ko aar mbokk yi lii yëpp incha allah danañ leen ko leeral après fi ko alxuraan wax alxuraan andi na lii lépp ci soratu Yusuf aaya di incha allah danañ leen ko jottali incha allah bu film bu jeexee ci kàttanu yàlla. gis nga ko day ah mbokk yi tante kontaan nañ ndaxte plan bi booy yi war a xale yi war a def ñoom yëpp jox nañu xale yi plan bu ñu war a sànke Yusuf. comme que gis nga moo tax ñu bég nañu noonu mbokk yi Benyamin mi ngi noonu ci kanam Yusuf mooy rakkam ji nee na ko sa mbokk yi dañ laa bëgg bu fekkee nag sàkku nañ dara ci yow bul sikki sàkk na nga leen ko defal na ngeen yóbbul Yuusuf lu doy ci lekk ak naan ndaxte moom xamul coona laawi maa ngi lay dénk Yuusuf fexeel ba bu ko dara jot ah maa ngi lay ñaan bàyyi bu dee da nga cee tiit wala nga ragal ci téye ko téye ko ah laawi am na lu mu xam. nee na bàyyi bu boo ci amee loo ci kii rek tënkaatee téye ko rek loola lañ nee na ko ah dénk naa la ko na ko kii bu baax. dégg nga li ko Yahuza wax nee na ko maa ngi wax ci sama làmmiñ ak sama làmmiñ mbokk danañ la ko andil mucc mu mucc dara du ko jot aywa gis nga jël na loxo moom la Yahuza gis nga laawi de moom demeetu ci noona ndax li ko baay ji dénk rëy na. Youssouf mi ngi tàggoog rakkam Benyamin nee na ko Benyamin nee na ko bul tardé nag na nga gaaw a ñëwaat soo la bàyyi ji ndeysaan allahu akbar am na lu mu yëg mbokk yi mbokk yi ñu xool bàyyi ji fii rakk jaa ngi noonu Benyamin yaay tant jaa ngi noonu taxaw waaye day mi gis ngeen bàyyi ji ni muy junjee mel ni ku ñu jël sa yëf nga nga nar koo ñàkk ngay sàkkoot pour ñu delloo la ko loolu la bàyyi ji yëg allahu akbar nee na ko sëñ bi bul bu ragal mbokkam yu mbokkam yi danañ ko aar danañ ko wat waaye laa wi de mbokk yi ki ñu dénk xale bi gis ngeen ko ni ñu ci ginnaaw ndaxte comme xam na ni plan bi ñu tëral mooy rey Yuusuf bàyyi ji nee na ko yow laa ko dénk mu ni bàyyi bu fekkee ni ragal nga Yuusuf du ñëwaat dénkaat teewaat ka nga xam ni mooy plan borom plan ba gën a rëy moom muy Yahuda moom moo daal di fab loxo ba rek daal di jiital ndeysaan ah gis ngeen day gis nga day ñu noon di dem waaye boo leen gisee seen doxin wii ñuy dox ak doxin wañ noonu dox njëkkoon bañ doon sàmmi wuute nag doxinu tey wii Yuusufaa ngi noonu ñu yégal ci mbaam mi cey moom de ma ngay muuñ rek ndaxte dafa gëj dafa fii daanaka mi ngi fi doog a ñëw miinul àll boo leen gisee seen xoolante gi rek nga gis ni naruñ jàmm gis nga Yahuza dénkaane na yadwa ci pet sànni allahu akbar def ni sama tànk yaa ngi metti fi kon façon phobie am na phobie daa metti de phobie ngay foog man metti na de gaay foofu ñu de wala laayu mbokk yi moom xool na fële. Hmm? xam na ni jàmm nar ta xew de. paasante de Yahuza ngàdd na ko bokk yi ñu bàyyi xel ni Yahuza mi turam daanaka ci la al yahud génne mooy ñi gën bon ci kaw suuf yàlla mu ni ñi gën noonoo jullit ñi gëm yàlla kii gën a nekk seen noonu mooy yahud yi la tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu al yahuda walladina ashraku waaye booy waxal yuuxul ca kaw ba xam sa baay dina dégg yuuxul woo sa baay allahu akbar ah ما لك تماطل يا يوسف أبوك ليس في الجوار sa baay ñëw fi yuuxul ca kaw gën a la yuuxu ah mbokk yi direetal nañ ko de ba tey ñu ngi doon ñu ngi bëgg suñuy bàyyi bëgguñu cofeel ñu waaye waaye bàyyi suñu mbëgg mbëggeel jëpp ñu bëgg la ko bañu ban ban ban la ban bàkkaar laa def ba ngeen may mbugal jugal jugal taxaw laa wax ngàdd na ko allahu akbar ñoo bëgg a jiite yow danañ la jël ba dugal la ci bàmmeel am sa sa bàyyi moo ñu dugal ci lii yëpp léegi sa bàyyi dinañu bëgg force ñun ñëpp suñu doomi Yaaqub lañ yow dong ana sa baay bi nga doon wéeru tey ana sa baay ba nga doon wéeru da da nga rëy làmmiñ rek sa làmmiñ daa rafet wax waxal ñu dégg waaw léegi ana biddiw bi lay si jootal ana biddiw bi nga wax moo lay si jootal ana jant bi lay si jootal bàyyi booy ah mbokk yi ma nga yuuxu ngelaw laa ngay puus kàddu ngelaw laa ngay puus kàddu ma ngay dem. allahu akbar ngelaw laa ngay puus kàddu ga ma ngay dem waaye gis ngeen laaw yi ba tey bokku ci duma yi waaye mbokk yi ngelaw laa ngay puus kàddu ga gis ngeen ma ngay dem de baay ji dégg na ko baay ji ba tey jógewul fa taxaw te gunge ba fa yemoon nee na ma mi ngi noonu de am na kàddu gu muy dégg de waaye mbokk yi gis ngeen ngelaw li ni mu baree poussière bi ni mu baree kon fitna lañu laal laal nañu laalaake moo tax adduna bi yëngatu na lan moo xew ba ngelaw li bari nii lu xew am na lu xew de góor gi nee am na lu xew de gis lu xew lu tax ngelaw li bari nii jëlal lii ñu dugal ko ci ci saal bi nañ dugg ci néeg bi yëngatu leen aywa dugalal bagage ci néeg mbokk yi gis ngeen lii bi ni mu jamono dana yëngatu yëngatu boo xam ne di yaakaar na lu xew fekk am na lu xew laal gañ laal Yuusuf gis nga yëngal na adduna bépp ngelaw laa bari na góor gaa ngi dégg ay kàddu ndax yaa ngi dégg li may dégg dégguma dara de dama dégg ay yuuxu yoo xam ne ngelaw lay ma ko andil déglul allahu akbar waaye man man dégguma dara yàlla al garaaba lu raara ngi nii lu raara ngi nii ah gis nga day laaw yi kii yahuda mbokk yi waa banu israel ñi nga xam ne ñooy yahud yi gën a bon yahuda moom seen maam la laaw yi mais nga xam ne moom bokkul ci dóor yi te moom la bàyyi ji dénkoon yusuf xelam ak xolam mooy ko mu dóor kooku maam la ci sayidina musa alayhi salaam yusuf mbokk yi xam na xamatul fu mu nekk mi miir lu ko bett ci mbokk yi ndaxte ay nit yoo xam ni ay seetu yonent lañ ñuy def lu ñaaw lii gis nga fu doo dóor yi gën a tare rek ñu koy dóor fu dóor yi gën a tare rek fu mu gë fu mu gën a xàcce rek ñu gën a xàcc di dóor rek ndeysaan ay na Yuusuf ana Yuusuf loo bëgg Zeyna sama baay ak sama yaay fan lañ dem dañoo gunge woon Yuusuf wàññeekooguñu allahu akbar mbokk yi xale bu jigéen ba bàyyi leen ko xel. an ah, sa dàll yu rafet yi nga doon wax lu tax mu xotteeku ah sa yére yi da nga wax ne yére yi set nga sol waaye kii moo perte waay. waaye borom kala gu tilim gi xale bu salte bi. yaa ñuy jiite yow. ay waay jërim waay ay waay jërim bi waay. waaw. ah yaa. léegi de xar kanam yi nga xam ñoo lay sujootal xar kanam yaa ngi ca kaw yàlla di sujootal tey tey yaay sujoot doomu jirim bi jirim bi nga doon ana sa ndey ju dee ja du la wat du la aar ana sa baay kenn du la dimbali tey Yusuf dafa làqatu de dafa ànd ak mbokkam yi xanaa Yusuf dafa làqatu mu dafa ànd ak mbokkam yi dem nan la ñuy def ba neen ngeen di ba Yusuf génn lu tax ngeen di bàyyi Yusuf génn man gis naa lu bëree bëri man ci bés gi gi gis naa Youssouf di am ay jafe-jafe Youssouf moo sàkk pour ma jox ko ndigal mu ànd ak rakka magam yi dem fooy xanaa bëggoo Youssouf ay ragaloo ci moom dara bëgg naa ko de waaye mbokk mi nag ñoo sàkkoon pour ma ànd ak moom moo tax ma am seen ma am xel mu dal ci ñoom rek. Ah, mu ne ah lu gën a gën tëray lii. bi may tëdd bi maa ngi gis Youssouf ci place bu fóot mu mu mu mu yuuxu allahu akbar xale bi sax day gis. nee na man day sama xel dana sama xale yi nag sama dëgg danañ wattu Youssouf danañ ko aar. man mii sikk naa sàkk ci loolu de allahu akbar gis nga seelam nañ la suuf si ba nga taqrib lu tax wax lu tax waxoo waxoo biddiw yi lu doon sujjóot ñu ñëw dimbali la dama lay rey tey rend la laay def gis nga mbokk yi yahuda da ko doon bëgg a rendi bàyyil ma rey ko comme comme ni yaayam deewe bàyyil ma rey ko comme ni yaayam deewe rek waaw nee na ko waxuñu woon loolu waxuñu woon dañ koy rey du ma lay du ma la bàyyi nga rey ko waaye yow yow laawi sori ñu bàyyi ñu rey ko rek waaw man mi man mi su su su donte man man dong maa fi des sax ah bu ngeen ko naree rey dama leen di rey boo ko naree rey ma rey la. bàyyil jàmbur allahu akbar mbokk yi gis ngeen yahuusa ni mel de caay laaw yi nee na ko waxuñu woon dañ ko rey da nga li ko yahuusa wax yaa dox sama diggante ak moom li nga def di nga ko rëcc mu ne man xam naa ni suñ yàlla duñu jéggal ñu ngi lay ñaan nga baal ñu baal ma baal ma àq baal ma àq xaw ma ni woon ni di nga àgg fii baal ma àq Youssouf Youssouf de xamatul fu nekk mbokk yi waaye daraja tuur na deret ju bokk ci yonent mbokk yi bu laale suuf rek dana andi firnde yu rëy rëy moo tax ñi ci laal ñëpp danañ am jafe-jafe. est-ce war na ci ay yonent ak doomu yonent ñuy jëf-jëf yu mel nii. mu ni ñu est-ce que war na ci doomu yonent ñuy def at musiba bu toll nii. allahu akbar mu ni gis naa ni ay fitna yëg naa ni fitna ak musiba ak ay nattu dana wàcc fin lan moo tax. mu ni balaa une heure de temps rek. sama baay tàgg woon tàgg woon nag yéen ku ci nekk di ma foon ku ci nekk ya bëgg wane ak mbëggeel ci ñun mu ni yahuda mi moo ma yéegaloon ci kaw fas wi ci kaw mbaam mi ana ko am mbokk yu mel nii ana ko am mbokk yu mel nii yaakaaroon ni duñ la noonoo ah ragaloon ni lii du dal ci yow ndekete woo mbokk mi ñooy noonam yi gën a noonu ñoo gën nekk noonam yi gën a nekk ay noonam mu ne tuskare ñeel ne képp koo xam ni ab xolam denc na yu bon yi gis nga yahuda doyelul de wax ma lan lay defa xale bi kon lu des na lañ defa xale bi loo bëgg mu ne nañ dellu kër ga loolu rek laa gis nañ dellu mun ko yow da ngay gént yow zaa yow laa bi da ngay gént gént dellu kër ga mënta nekk booy bi ñu koy rey nga naan la lan asmaha laka bi i'aadatihi ila albayt hatta walaw mu ni kon leen nay mën boo bëggee ñu delloo ko wala ñu rey la nit boo xalaatal leneen boo waxee dañ koy delloo moom ma faat la boole la moom lan la def Youssouf Youssouf lan la ñuy def ah Youssouf man jaaxle naa de damaa war a dox ba kenn du rey kenn du la rey dinaa def lépp lu ma mën ba duñ حسنا يا اخوتي نعهد به الى القوم nee na kon nañ ko dugal ci nañ ko nañ ko sànni foo xam ni voyageurs yi tukkikat yi bu ñëwee dañ koy jël yóbbu nee na ko loolu bu amee bu ko ñooñu yóbbu mbir mbir mi day siiw nee na ko nañ ko aj benn montagne bu kawe rek ndax ñiy tukki buñ fa jaaree jël ko yóbbaale ñi ngi xalaat de laa taxtulu Yusuf wa alquu fi gayaabatil jubb gis nga muy woo nee na nañ ko nañ ko dugal ci benn teen boo xam ni ñii ñii tukki buñ fa jaaree root ndox mën nañ koo jël yóbbaale ko man xam naa teen bu jege fii mbokk yi ngeen baal ñu àq ci aayat yi wax naa dina andi yëpp incha allah ni ko alquran nettali yëpp waaye pour bañ wax ji ñu ci luxa bi la ñuy jël làkk làkku arab bi lañ leen koy firil ci wolof bu ko defee buñ noppee andi aayat yëpp incha allah nee na daw leen léegi li ñuy def mooy buñ ko rey nañ ko dugal ci teen boo xam ni Euh, ñii tukki bu ñu fi jaaree mën nañ ko bu ñuy root ndox mën nañ ko mën nañ koo jël yóbbu ko waaye mbokk yi gis nga lañ bàyyi ca kër ga ah xelu kenn dalul mag ja gis ngeen mi noonu moom day gis day gént day gis lu bëri Youssouf kañ lay def si yow bàyyi bul jaaxle yow sama doom nañu xaar tuuti fii ngoon rek. nee na man man gisoon naa léegi. am na lu ma sama borom wan Yuusuf ñu koy duma waaye laawi laawi moo moo moo ko làqoon nee na ko ah man de gént man problème bépp ci gént gi la jóge nag mun ko gént gi da maa waxoon Yuusuf bu mu ko wax kenn mu ne xam naa Yuusuf sax waxu ko waaye day xaw ma lu feeñal gént gi ba tey gis ngeen mbokk yi mi ngi noonu tànk yi deretal na mënatul a dox allahu akbar caay ndeysaan da li Yuusuf waxoon day lu xew yéen xanaa agsiwuñ ci teen bi nee na benn teen bi soreetul xanaa da ngaa bëgg Youssouf génn bu ñu wax ko nit ñi na ko mën a yéeg bay génn nañ dem ci wetu garab nañ ko dugal ci teen boo xam daal dana xóot xóotaay boo xam ne du mën a yéeg ba génn waaye buñ ko dugalee ci teen bu gàtt mën naa génn dem yoonam yëgle xew bu ko defee suñ jàpp. alqu fi ghayabatil jubb yaltaqitu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin bu ngeen dee def daal mooy sànni leen ko ci teen boo xam ne rek ñii tukki na nañ ko jël nee na pala nee na tukkikat yi daawul jaar ci côté bi nañ seet beneen yoon mooy mooy mooy bu ko dugalee teen bi Youssouf day dee parce que fii teen la bu xóot boo xam ni voyageurs yi ñoom ñi tukkikat yi fu ne lañ daan jaare kon duñ jaar ci côté teen bi te buñ ko ci dugalee rek mooy dina dee te waxuñu woon dee gi dañu waxoon nañ ko serale suñ kanam pàpp léegi ñu ngay natt ba xool xóotaay bi nu mu toll ndax dina baax am déet waaye mbokk yi ñu bàyyi xel teen bi ah teen bi xóot na de booboo baax jaad ashir andi leen ma ay buum tekki leen bu mu ciy jur gi ngeen andi ko jaad yaag ashir sanarbituha bi baadiha likay yusbiha bu ko defee ñu xool nat natt guddaay bi ni mu toll bu ko defee ñu seet nuñ ko ci yore cey laa wi mii day moom mooy mag ji waaye mënta jël benn décision ndax moom dafa am jikko bu nekk ci moom mooy jikko bu yonent mooy lan kàddoom daf koy sàmm ca de la mu waxoon ak ay mbokkam bañ d'accord ci ginnaaw mer boo xam ni nekkoon na ci xolam nekk ci xoli mbokkam looloo tax loolu lay sàmm. nee na ko fii teen la boo xam ne daa wex ñi daan tukki daawuñ fi jaar di root. nee na ko ca buñ fi dugalee Yuusuf moom dina dee ngi mar mun ko noppil soril fële ñun li ñu bëgg la ñuy def. léegi li li ñun li ñu yamal li yem ci ñun mooy na dee na dund loolu mooy loolu loolu euh, benn la ci ñun rek gis nga këf ñëwal. bu ko jege bàyyi ko bàyyil man maay def liggéey bi. ah rakk baal ma nag aw ma benn pexe ndaxte kaddu day laay sàmm ay na yusuf yusuf foo jëm andi leen bu ma naa koy takkal sama bopp allahu akbar ah ban bàkkaar laa def ban bàkkaar laa def yéen a ngi may tooñ de léegi buñ ko deful da ngay nekkatul sàng ca loolu la ñuy bañ damay dama dama ragal lëndëmuk teen bi dafa lëndëm teen bi dafa lëndëm bu leen fi dugal yàlla mi ngi ànd ak yow dana la aar allahu akbar wax ji bari na eh andi ñëwal yahuda bu ma yóbbu yahuda bàyyi ma yahuda dama ragal teen bi dama ragal lëndëmuk teen bi baal ma xanaa da ngeen a bëgg ma sori sama baay léegi dinaa leen fasante ak yéen kóllëre dinaa sori sama papa ba dootuma gis sama baay dootuma gis ba mukk incha allah ne loolu dayal suñu xel loolu dalul suñu xel baal ñu sànni la ci teen bi rek damaa ragal teen bi leen dànk dara yëtu yow mënoo ñoo dimbali lan la ñuy dellu suñu waxee suñu papa lan la ñu koy wax suñu dellu la ñuy wax suñu papa léegi dañu wax ci loolu ah, dañuy wax ne tiliye ko lekk. ajal abuna kaana mutaxawifan min an wax na loolu nee na woon damay damay ragal ngeen ànd ak moom tiliye lekk kon suñu bàyyi ko jox nañu lay. waaw léegi nag il faut moom mandarga nag il faut moom mandarga comme ni day ragal ñu du ñu ten tili lekk ko nañ leen yóbbu boo xam ni mandarga boo xam ni buñ ko yóbboo rek moo xam ni tili ko lekk léegi nañ def luy mandarga bi nañ jël yére bi ah mbokk yi ban yére la ñuy jël aywa bu le ma yóbbu waay aywa bu leen ma jël waay bu leen ma sànni ci teen bi kontaan nañ de mbokk yëri ba ci kaw lañ jël alhamdulilah àgguñu ca biir bàyyi leen ma waay takkal yow mu dëgër takkal takkal ci biir bi na dëgër allahu akbar ay waay bu leen def loolu waay ay waay bu leen ma sànni ci teen bi baal leen ma baal leen ma baal leen léegi bàyyi leen laaw yi dugal ma ci biir bàyyi sa wax ji baal coow lu bari bàyyi leen ko falan yudirakum fi shay'in ajabtum dhalika bi daqa'iq bàyyi leen li mu bëgg a wax ñu moo ko bàyyi leen ko na wax ay kàddoom yu mujj waxal sa kàddu yu mujj waxal li bëgg a wax waxal say kàddu yu mujj damaa bëgg wax yow dong kenn du ko fekk yow dong laa soxla dégg ngeen li mu wax ah garaaw nañ ko may de toute façon def leen li ngeen def rek ba ngeen pare ñun ñu sànni ko ci teen bi dama laa bëgg loolu yooyu laa wi li nga def rafet lu rafet li nga def gis naa ko bëgg naa sama mbokk yëpp ca yàlla tax bàkkaar bi ma def daal loolu rek laa bëggoon a xam ban bàkkaar laa def ba tax ñu bëri ko ci teen damay ragal musiba dal leen damay ragal damay ragal bàkkaar bi ngeen def sama baay nan ma ko def mu wàcc seen kaw bu ko defee baay bi mën na ñaan yàlla alag leen waaye bul wax dara mbokk yi li xew damay ragal nag yàlla nattu leen de waaye dina am de ما جرى ويجري اليوم ليس خافيا أبدا على الله tey laqatuwul ci yàlla yàlla gis na ko لكنكم ستكونون بمن أنا عن غضبه تعالى tuub leen dellu ci yàlla li ngeen def rëy na tuub leen yàlla musal leen ci mbugal mbugalum yowmal qiyaam ci xale bu ndaw boo xam ne jiit la ku lott la ku néew doole ngeen koy néewal doole nii maa ngi lay xamal ni yàlla tànn ma ma nekk fi yonent xam ngeen loolu ba pare di ma di ma tooñ di ma dugal ci ay fitna ca yonent kenn du ko laal dama ragal naa ci yéen de yéen doomi Israël yi li ngeen nar a def nii ci yonent yi jaar yëpp yéen a ko njëkkee te mën na leen topp baat ni tudd nee na ko yàlla rëbb nañu bàkkaar biñ nar a def yàlla danañu rëbb ñun waruñu ko woon a def lii. laqad axyayna min jadid sunnat al-aarif nee na dundal nañu daal ay sunna dundal nañu yoon woo xam ne yoon bon la yoon woo xam ni buñ ko naree def day. ba addunay tukki histoire dootu ko fàtte ci dana topp suñu xeet ba addunay tukki lu ngeen di xaar ñëw leen bàyyi leen laaw yu fële laaw yu nee man sama loxo du ci laale ayo bu leen ma sànni waaye mbokk yi ña ngi ko yor ci teen ba nag allahu akbar mbokk yi gént gii la bàyyi bàyyam géntoon boo leen compté danañ nekk fukk ak ñaar fukk ak ñaar rakk ja gën nga sànni nañu Yuusuf ma nga noona allahu akbar ma nga teen ba nag mbokk yi la hawla wala quwwata illa billah tëmb na ma ngoog mbokk yi gis ngeen day mi ngi noonu gis ngeen am na benn wéttal a ngi noonu ma ngay woo bàyyi ba léegi waaye mbokk yi dee ci dugg ci ndox metti na lap metti na lool rawatee na nga dugg fu xóot fii gis nga day pare nañ nag liggéey ba noppi na ngelaw la ñëw na waaye seen xel dalul Yusuf daanu na de Yusuf daanu na ca teen ba de ca Yusuf Yusuf Yusuf allahu akbar baay booy mbokk yi ay ay petax ay petax a ngi noonu ci biir génn nañ dem seen yoon waaye ñu xool xale bi fan lay mujje déggatuñu baat de déggatuma dara de lu xew ma bikum du lii lañ bëggoon kay alaysa hada ma aradtum yow dong yaa ko bëggoon anta wahdaka aradta dhalik ñun bëgguñu woon lii lam naqbal bi dhalik kunta da nga ko bëggoon a rey bu yàgg di nga fay سوف تدفع الثمن li nga def ñii di nga ko fay de dina la coûter cher de لقد قتل قابيل نده الشاب هابيل yaa rey xale bu ndaw yal na yàlla rëbb la yal na yàlla rëbb la عليك اللعنة bu dee rëbb la moom rëbbum yàlla ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo ko bokk ci ñun lay wàcc yow kenn yow bàkkaar bi ñu def moom ngay def mbokk yi xool leen nag kéemtaan a ngi commencé feeñ allahu akbar ah, am na daa mel ni am na lu koy génn de daa ni am na lu koy génn de mbokk yi gis nga benn xeer moo génn ci biir ndox mi ci biir ah, teen bi daal di koy tóoj waaye am ngeen geneen kàddu ko ngeen dégg allahu akbar sikki sàkk néewul ni yaay ni am na koy wax ak moom mbokk yi kan mooy wax sikk sàkk néewul ni yow muy yaay Yuusuf allahu akbar ah Yuusuf toog na nag sikk sàkk néewul ni yow yaay Yuusuf Yuusuf toog na de mbokk yi góor gi mooy kan kan mooy góor gi aha kay man la Yuusuf man maay Yuusuf caay ndimbalu yàlla ñëw na xam naa ni yaay kay xamoon naa ne dinaa dajeeg yow fii benn bis ci bis yow yaay kan góor gi góor gu mag góor gu yàgg ca jamonoy një démb. foo ma xamee ñenn ci yonent yi waxoon nañ ma ni waxoon nañ ma ni danaa dajeeg fii yow moo tax sama xol bëgg ma jokk ci yow di la xaar ak maa yàggoon a bëgg a daje yow man dañu nag benn ci yonent mu ne bi di nga benn yonent mos na maa wax ne di nga dinaa daje ak yow fii ci teen neen kon yaa ngi doon xaar sama kii nee na junni ak ñaar téeméeri at toog naa fii di la xaar mun ko junni ak ñaar téeméeri at yaa may xaar fii mun ko waaw dama doon xaar ñëw gu sell gi liñ ma bég mbégte ma woon ni di ñëw moo tax ma la doon xaar moo tax ma ne woon naa toog fii xaar la ba Yuusuf ñëw bis ci bis jamono tey jii mooy bis bañ ma digoon ni daan dajeeg yow man bég naa ci ànd ak dajeeg yow góor gi yow tamit nee na ko yonent yëpp xam nañ loolu ñëpp yonent yëpp xamal nañ ma ni yow di nga ñëw fii benn yonent yàlla doon wax ni nee na Yuusuf commande ga am na yonent bu doon wax yow Yuusuf yow yaay wax sama tur na nga fexe ba jox nit ñi seen i àq bis boo demee ba jiite am réew am Yunus dana wax yow yaay denn yonent yàlla yëpp loolu Yunus waxoon lépp luy politique ci sa loxo lay mate yow Yuusuf loolu la yonent yàlla Yunus waxoon yonent bu nekk nett na ko na mu waxoon waaye gis nga Yuusuf lool daf ko doon gént négatif bi ko xeer bi génnee mu tëdd loolu la géntoon benn góor yàlla. boo xam ne nee na ko junni ak ñaar téeméer maa ngi la doon xaar fii ana góor gi sama góor gi ma doon xaar fii ana nga foo nekk ana nga yow góor gi allahu akbar moo tax ñu leen géntug yonent géntug nitug yàlla bu dee nitug yàlla la bu dul yonent ñeent fukkeelu xaaj la ci nubuwa mën naa am waaye bu dee géntu yonent la day am force nee na ko yow yaay yow kon man dama doon gént kon man dama doon gént waaye mbokk yi ba tey gis nga la ngeen di def fii nañ leen dem ngoon ngoon ngoon na ngoon gi jot na nañ leen dem seen xel dalul de bàkkaar bi ñu defaree mbokk yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bàkkaar boo ko defee sa xol bi mu yëngatu di fët fëti sa xel du dal rawatina nga bokk ci ay tànneef gis nga ñi ñëpp ay anbiya lañ yàlla dana leen solo wi jox leen xam-xam yonent Youssouf ah dégg na ku koy woo Yuusuf Laawi ah wuyu na Laawi ana nga man de maa ngi dundu ba léegi maa ngi dund de Yuusuf a ngi dund Yuusuf na ma de waraak wuyu na ma Yuusuf a ngi dund de ay waay waay Yahuza waay booba na Yahuza ba <laughs> Yuusuf maa ngi dund de deewuma allahu akbar léegi nag maytum alayhi al'an léegi lu ngeen di xaar dañ leen def ñu yoon hayya nadhhab bu dundee moom bu ko mar wi dana ko rey nañ leen dem hayya bina nadhhab nañ leen dem def nañ li ñu def ba pare istabadda bina al-qalaq khashyatan ñun dañoo yaakaaroon ne da ngaa lab dañ yaakaar da ngaa lab lu tax labu man man xaw ma sax nu ma yàlla muccale xaw ma nu ma yàlla muccale waaye léegi génne leen ma kay maa ngi ci dama ragal lëndëm gi génne leen mënu ma laa génne nag sa sa mbokk yi nga xam ne seen xol yi dafa dafa wow nanguwuñ nga génn muñal rek muñal dénkal yàlla sa bopp allahu akbar dana dana ñoo danañu dellu si waat man lépp luy lekk ak naan danaa la ko andil bu ragal bu jiir bul jàq bul naan ndox mu weex mi dafa naa andil ndox yéen kon rey ko bu yàgg yéen xamoon ngeen fii dafa am dafa weex xamoon naa ko. Yahuza moom moo waxoon ba ma ko wax Yahuza mii moo waxoon ba ma ko wax nañ leen dem tardé nañ heure bi ñu doon ñibbi jot na mbokk yi xoolee ndox mi dañ ko bu ko naan dafa weex waaye xoolee ndox mi allahu akbar ndax ndox mi weex na ci moom ah ndox mi daal neex allahu akbar mbokk yi teen bii moo gënoon a weex ci bërëb yi moo taxoon rakk ji mag ji mu ni woon nañ ko fi dugal bu ko defee bu ci naanee rek dee Yuusuf tàng na ndox mi naan weex neex na lool so nee na sama mbokk yi dem nañ de doomu Israël dem nañ man damay dem ànd ak ñoom dinaa jël si incha allah bu leen dem bàyyi ma fi muñal rek ci guddi gi ci prison nga nekk muñal laa bi bul dem laa bi raw bi sama mbokk yaa ngoog ñooñu lay woo ay waay bu leen ma fi bàyyi del si leen bu leen ma fi bàyyi man dong ah tiit naa de ay waay tiit naa waay bu leen ma fi bàyyi waay man dong xaw ma lii waay sama bàyyi laa daan sama wetu bàyyi laa daan tëdd ci sama bàyyi laa daan wéttali ko kon bu leen ma fi bàyyi allahu akbar waaye nag tawakkal ala allah yusuf alayhi salaam wéeru na ci yàlla